الأخوي وقصد كلمات الشكر للإخوان من أهل الزاوية على حسن قيامهم وجدية موافقهم كل حين وأوان من أجل نشر دعوة الإسلام ورعاية أمره وإحياء رفع الشأن بطريقة تجارية حسب تعاليم الشيخ الحاج مالك كل ذلك في هذا المسجد المبارك الذي بناه سيد الجليل وذكر الجميل سلالة الأفاضل على بالمعروف bi jaayil xadri bëgg anaam man sumaahu sama wa zikruhu nama bal daara saytu fi aqtaar wa shahra manaqibuhu bayna wara loolu ixtisaar imaam al aimma wa mayaadi l wara fi zamani wa kafi l mandihi wal xamaami rafia wa samadi axwaani sania cheikh al mashayiqi fi l imaani wal islaami wa xujjatil al anaam علم العلماء المتقين وتاج الحكم المتقين الله هو المجتهد مع فهم العلوم والمجدد man darasa min rusum walahu lyadu tuula fi kulli fani min alfudul walgaayatu alquswa walmaljau mawa maliku siman fahwa sayiduna wa cheikhuna wa murabbina wa xurbatuna wa jëdduna xaaji malikul osman ñi ngi leen di nuyu waaw nee na ñi ngi leen di nuyu gannaaw ba ñu jullee ci yoon muhammad ne gannaaw ba ñu jullee ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yi nga xam ni ak saxaabaam yi nga xam ni ñooy boroom jubal di boroomi xamle ñooy boroom jubal di boroomi xamle ñi leen nuyu gën jaa selli nuyoo nee ñu di leen nuyu gën jaa selli nuyoo ak gën jaa yëkkatiku barke ak gën jaa yëkkatiku barke ca waxu yàlla ji mu ni nee ca waxu yàlla ji mu ni wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsan min awruduha wa ida xuyiitum bi taxiyatin fa xayu bi axsani minha aw radduha buñ leen nuyoo ne buñ leen nuyoo benn nuyoo benn nuyoo moo tax mu ni bi taxiyatin ne moo tax mu ni bi taxiyatin ni assalaamu rek yem ni assalaamu rek yem ci aleykum aleykum fa xayu ne fa xayu bi axsani minha bi axsani minha aw radduha aw radduha assalaamu aleykum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala taala wa barakaatu wa barakaatu na ngeen ca yegg na ngeen ca yegg ñuy sant yàlla mi nga xam nag ni ne ñuy sant yàlla mi nga xam nag ni gindi nanu gindi nanu ci xéewalu lislaam ci xéewalu lislaam mu feeñal cofeel mu feeñal cofeel ak xaritoo ak xaritoo ci xolu ñooñu way gëm ñëpp ci xolu way gëm ñëpp fa asbaxtum ne fa asbaxtum bi niamatihi ixwaanan bi niamatihi ixwaanan luñ ma saan tojante tojantey bopp ne luñ ma saan tojante tojantey bopp ñoom yéeféer yi ñoom yéeféer yi ak di ko noonoo ak di ko noonoo bu ñu bokkee tuub rek bu ñu bokkee tuub xaar di xarito daal di xaritoo may nag maa ngi nuyu ñëpp ne mu ni nag maa ngi nuyu ñëpp di ñaan na yàlla ci ñoom di ñaan na yàlla ci ñoom di nuyu sang bu tedd bu màgg ba di nuyu sang bu tedd bu màgg ba di sunu baay di sunu baay Cerno Muntaga Ahmad Taal Cerno Muntaga Ahmad Taal di nuyu nag mbooleem sëriñ si di nuyu nag mbooleem sëriñ si ak imaam yi ak imaam yi ak muqaddam yi ak muqaddam yi président daayira yi président daayira yi góor ak jigéen ndaw ak mag góor ñu ngi leen di nuyu nag ñu ngi nuyu gu sell gu teey gu barkeel gu barkeel. goo xam ni goo ak ug bokk ak xorma ak xorma. moo ko ëmb. may nuyu kenn ku ne nag kenn ku ne ci turam ak santam. ñaan yàlla nag di ñaan yàlla. yàlla barkeel yàlla barkeel. barkeelal nu barkeelal nu. may may profito. di leen ndokkeel di leen ndokkeel. yéen jullit yépp yéen jullit yépp. ci iidul fitri bii ñu génne ci iidul fitri bii ñu génne fan yu néew ci fan yu néew ñu ñaan ci nag nee ñuy ñaan ci yàlla yàlla ko yàlla delloo si yàlla na yàlla delloo si loolu ci mbooleem xeet yi nee ci mbooleem xeet yi ak dikk ak dikk yéen bokk yi nag yéen bokk yi nag li ngeen xam yéen ñëpp ci li ngeen xam yéen ñëpp gàllankoor nee gàllankoor moo nu gàllankoor ba nuy soog a si nee moo gàllankoor ba nuy soog a agsi waaye du tee nag ñu jaal leen waaye nag du tee ñu jaal leen sang bu tedd ba sang bu tedd ba bu baax ba bu baax ba borom siyaasa ba borom siyaasa ba ku nooy ka ku nooy ka ku amanteeg ñëpp ku amanteeg ñëpp kuy ñëppi lépp kuy ñëppi lépp xaaji abdul aziz alxaaji si yal na yàlla yokk leeram nee yal na yàlla yokk leeram ñu dajeeg yéen nag tey ci zawiya bi nga xam ni ne ñu daje yéen nag tey ci zawiya bi ngeen xam ni zawiya bu yàlla barkeel la zawiya bu yàlla barkeel la boobu ba léegi nag ne boobu ba léegi nag may waaj may waaj maag samay rak maag samay rak Abdoul Aziz a ngi ne la nee Abdoul Abdoul Aziz a ngi ne la sëriñ Babacar a ngi nii sëriñ Babacar Mansour a ngi ni Alxaaji Malick a ngi ne Alxaaji Malick Abdou a ngi nii ak mbooleem ñu ñu ëmb nag ak mbooleem ñu ñu ëmb ñëpp nag ci rakk yi nga xam ne Abdoul Aziz tuddoon na leen ñëpp nee ci rakk yi nga xam ne Alxaaji Abdoul Aziz tuddoon na leen ñoom ñëpp ak ñi mu tuddul nee ak ñi mu tuddul ñu ànd nag tey jii ñu ànd nag tey jii di leen ziar si di leen ziar si di leen sant si di leen sant si di leen nemmiku si di leen nemmiku si di leen dollee jaal nag di leen dollee jaal nag bàyyi bu tedd boobale bàyyi bu tedd boobale xaaji abdul aziz alxaaji abdul aziz laa zaala inda mawlaahu taala laa zaala inda allahu mawlaahu taala fi ahli tafaduli ladayhi wa tabriz fi ahli tafaduli ladayhi wa tabriz masul lay sax nekk tabriz ne moom alxaaji abdul masul dañ sax nekk tabriz tabriz ne tabriz mën nga nekk jullit man nga nekk jullit di ku baax di ku baax di ku ñëpp yaakaar di ku ñëpp yaakaar doo nekk tabriz te doo nekk tabriz ñu ni luy tabriz tabriz ne tabriz mooy raw sag mooy raw sag maas raw sag maas rek ne raw sag rek te raw sag maas jafe na ah. ne te raw sag maas jafe na raw sag maas raw sag maas ànd ak sa maas ci lépp ànd ak sa maas ci lépp dafa ndoog moom lépp dafa ndoog moom lépp wëlbati ko raw ko wëlbati ko raw ko raw sag maas jafe na ah. ne raw sag maas jafe na alxaaji abdu nag raw na nga nag rawoon nag maasam <coughs> ci yëpp nag ne ci yëpp nag Abdou Aziz wax na ko léegi ne Abdou Aziz wax na ko léegi ni président ko wax. ni président ko wax. boo demee ba ca kaw. ni boo demee ba ca kaw. waay waay na nga wàcc. waay waay na nga wàcc. mën a jëfanteeg nit ñi. mën a jëfanteeg nit ñi. première condition Mouhamad. ne première condition Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. ak Cheikh Ahmed Tidiane. ak Cheikh Ahmed Tidiane. ba mu ko jox yëf yi. ba mu ko jox yëf yi. dafa ne ko d' abord. daf ne ko d' abord. wàcc ba tolloog nit ñi. da ngay wàcc ba tolloog nit ñi. amara nabiyu imaamana bi tanazuli li ifaadil axlaaq bi lu di jëli. boo ne ci kaw. nit nekk ci suuf ngeen bëgg a deeyoo boo yéegul wàccul nu ngeen di deeyoo wàccal yow cheikh ba tolloog nit ñi ma leen jëriñ sama wedd yu man man man Muhammad lu tee nga dellu moo tax xalifa ni xubayla rujuin lil ali wa huwa rajiu wàcc na jëfanteeg nit ñi bañ jëriñu ci yàlla ak li ñu bëgg ci yàlla dellu yéegaat nag ca yàlla di leen seetaan xaaj Abdul it noonu la def boo ko gisoon fii mu ne doo xam ne ni ki may la jàbdu ca woyof ga ak nooy ga ak yaatu ga ak bëgg jëriñ nit ñi ndax ku nekk am na noo ko war a jëriñee ñi da nga di fekki soog lay ñi la nga bëgg ñu bëgg nga baxoog ñoom moom la fa tabaarakalla mooy Abdul Aziz ak Tibriz mm-hmm. may nag wàllu jiite cant googule ne mu ni wàllu cant googu le ak ziyaara bokk yi ak ziyaara bokk gi ak ñi teew ñëpp ne ak ñi teew ñëpp ak sunu bàyyi yi ñu lim léegi sëñ Abdou wax na ko ba noppi ne ak sunu bàyyi yi ñu fi limoon léegi sëñ Abdou wax na ko ba noppi bàyyi bi mag ci lébu yi ne bàyyi bi mag ci lébu yi muy mbay binta muy alxaaji góor gi mbay binta pay ak bàyyi bi mag ci zawiya bi léegi ak bàyyi bi mag ci zawiya bi léegi di alxaaji maxtar géy ak sunu baay Abbas. ak sunu baay Abbas Guèye. waruma ci dellu ndax Abdou waxal na ma ñëpp. nee waruma ci dellu ndax sëriñ Abdou waxal na ma lépp. kon magi lébu yi nag. nee kon magi lébu yi nag. ab léboo leen nuy si tey. ab lébu moo leen nuy si tey. mu ngi nag bi gi rek daje. nee mu ni gi rek daje. daje giine la akuk bokk. daje giine la akuk bokk. may jël sama cant nag nee may jël sama cant di ko jiital di ko jiital mbokki zawiya bi nga xam ni ci mbokki zawiya bi nga xam ni boo fi rombee bés bu ne boo fi rombee bés bu ne muy guddi muy guddi muy xadara muy xadara muy julli njël muy julli njël muy fajar muy fajar muy geneen julli muy geneen julli doo xam ne alaaji Malik nekkul ci biir ne doo xam ni Seydil Haaj Malik nekkul ci biir doo xam ni Babacar Si nekkul ci biir doo xam ni Babacar Si nekkul ci biir zawiya bi doo xam ne Xaaji Mansour nekkul ci biir zawiya bi doo xam ne Xaaji Mansour nekkul ci biir zawiya bi doo xam ne Alaaji Abdu nekkul ci biir zawiya bi doo xam ne Alaaji Abdu nekkul ci biir zawiya bi doo xam ne Alaaji Habib nekkul ci biir zawiya bi doo xam ne Alaaji Habib nekkul ci biir zawiya bi ci riir ne ci riir si kar sikkar julli julli ak la war ci wàllu diine ak wàllu yàlla waa nañu Babacar Sy Cheikh Ahmed Tidiane nan la gën a tabee taw ak nan la mën a tawee géej Sëñ Babacar bu dee taw ku ne ci biir néeg bi doo tooy am déet ka ci biti booy tooy te Cheikh Ahmad Tidiane buy taw ka ca biir tooy ka ci biti tooy kon Cheikh Ahmad Tidiane boo ko tabee taw waay cheikh buy taw ka ca biir tooy ka ci biti tooy te taw nag buy taw ka ci bitee tooy waaye ka ca biir tooy awaa ba asba loob lu fi la faaxi mu nabira la asbaha naasu xarxaa aw ashbaha wala muy nuru wëb lu waame fi l afaaxi ci gox yi mun xam ne di sotti kon laas ba xam mujj naa sa nit ña di way lap fii jët waaw waaw lan la Cheikh Amadou gën a tabe nag géej mu ni géej li muy jëtëro mooy wurus te bala am wurus da ngay dugg ci gaal dem ci géej sa bakkan xët doo ko li muy joxe dàq wurus mooy leen yaaqutul farida ani salaat al fatiha al majida وفي حقيقة المحمدية أنشأوا ذي الطريقة الفردية yaa xotu du farida wusu rafet woowu la cheikh di joxe te doo ca sonn ñëw rek lañ ba suur daagu ni ko may ma tariqa bi ñu may tariqa bi téye see loxo nga daagu demal janna kon cheikh moo gën a tamit géej asalaamaaleykum naa ko dagg foofu na am maa qaala mansour madihan waxay yi fii di termine al fuadi asalaamaaleykum ma dagg foofu ndax guddi na di leen ziyaara den balu àq di ziyaara gu tedd gi di leen yëgal nag ni alxaaji abdul aziz la sama mbaay waxoon rek ba bi seen xaaji may la jógee dañ ko ni may sugu ne dañoo bëgg ñu remplacer ko imam diw Omar Wele ndax may doomu alfaama yoro nangam nangam sama papa ni alaaji Malik lépp lu mu sampoon baaba ko du laaj ba xam dëggal na am dëggalul waaye xaaja Abdul Aziz lépp lu muy def nun de duñ seet ba xam dëggal na am dañ cee sotti su ndox kay ndax alaaji Malik du wax lu yàlla waxul du def lu yàlla waxul alaaji ma alaaji Abdul Aziz du wax lu Maodo waxul du wax lu du def lu Maodo deful loolu magam yi defoon Ababacar Si Alaaji Mansour kon lu mu wax yàllaa ko wax lu mu def yàllaa ko def kon lu mu def dañ koy dëgëral samp ko suuxat ko xanaa liñ ci dolli tey mag ñi nga xam ne ñoo zawiya bi ñoo ko ëmb ngeen di diisoog ñoom bu baax ci lépp lu ngeen nam den bàyyi xel bu baax te yaatal dënn yi nag di jéggale ka jëllale waaw yaatal dënn yi di jéggale di jéllale xam naa mënula zeno a bi nag laram ba mënula ko àgg waaye daal dafa jàmba dafa jégg alxuraan lool mu di ko jàppal mu di ko sottil mu jàpp raxas yaari loxoom galaxlu ko mu tiit sa léegi ni këng ci bopp bi mu ne wa kaasimin al xaysa moom jaam ba yàlla nee na waral leen mer yi mu ne kasabtu xays yi war naa sama mer mu tey jawal kaa ah, wala aafina ani naas mu ne afatu an ki jéggal naa la mu ne ko wax la ci la wallaahu yuhibbul muhsinin mu ne ko def naa tey nga gor goreel naa la ngir yàlla déggal waay day jàpp sas la nga wadd wala la mu weeroon gaañ ko jàmbali ko xab xaj mun si na abidin jàmbali kon yàlla nee na wal kaazimina xayda wan leen mari mer yi mu ne kazamta xas yi wan naa sama mer mu tëj wal aafira ani naas ni ngeen jéggal nit ñi mu ne ko jéggal naa la mu tëj wala yoxbil muslimin mu ne gore naa la tey ngir yàlla baax ñaa ngoogu nag jëf yaa ngoogu kat gaañi te nag nit ab jullit ëpp naa xeeb moroomu jullitam ndax yàlla moo xam fu mu jëf yëfam yu baree bari sax yàlla mi ngi ko rëkk ci ñooñu ñeen naan dañoo doye di déedéet dafa am benn sang am jaamam benn bés sang ba di génn ñu përee ko mu ànd ak jabar ja ba mu ñibbisi néegu ñax ba nga xam ne ci la jaam ba nekkoon ñu gis ay leer yu soqi ci biir néeg bi génn ci biti jëm asamaan jabar ji wokk jëkkër ji di ko xoolal xoolal leer gi ñuy dox ndànk di yoot di yoot fekk jaam bi mu ngi sol yu rafet ni yàlla sama guddi gii ni mu lewee su ko bëccëg bi leewoon doo ko bokk kenn allahu akbar julli ñaaraaka sëlmal ni yàlla gis nga guddi gi ni ma lewee damay jaamu jaamu rek guddi gi rek laa moom waaye wóor na ma ne bëccëg bi su ko moom ni moom mi guddi gi yëpp laay boole jox la sang bi xool rek ba bi bëgg a fenk ne nañ dellu fekk jaam bi dafa am muus moo xam ni di ca def yëre yu sell pour guddi bu jaamu yàlla bu ma cëggee nag mu xawaay sagaram limboo di balee ko def yëpp sang ba nag woo ah, feeñ nga da nga doon nëbb feeñ nga maa la yërnu ngay jaamu yàlla ñaar rakk yoo sëlmal yàlla guddi gi ni ma la su ko bëccëg bi leewoon doo ko bokk kenn tey goreel naa la ngir yàlla mu ni yàlla waxoon naa ni bu ma feeñ feeñ naa ashhadu an la ilaha illa allah wa daadi xatti daal di dee waaw moo tax yëf yaa ngi ci yëf yi allahu alama xasiya risalati dimbalante jëlalante bañ a xeebante surtout nag xeebante Mhm. ma ngoog walaa di jeex na kon fa tabaarakallaahu yàlla xam fa mu def yëfam ñu ngi leen sant bu baax di leen ziyaara di balu àq nag ndax kër gi déeg bi kenn moomakul yàlla walal masaajida lillah falaa tad'uu ma'a llaahi ahad di seen place bu baax mu def ko fi muy sunu sawe taas barab bi sunu sawe taas la kon ci suba ba léegi ngeen bàyyi soxla yëpp ak itte yëpp ngir alaaji Malik jar na ko nag ngir Babacar Sy jar na ko ngir alaaji Mansour jar na ko ngir sunu baay bu tedd bi fi jóge barki démb te jógewu fi jar na ko Xaaja Habib jar na ko Cheikh Seydi Mouhamadou Moussa jar na ko ñu may ma ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw dama ne ñooñu ñëpp laa wax ñii ma liim ñëpp yàlla nañ ma wuutu ci yéen dama ne ñii ma liim ñëpp yàlla nañ ma wuutu ci yéen fayal ma leen ku ci am jàngoor yàlla faju te kat dama nga loolu Maodo waxoon wa salliyan ya ilahi wajziyan abadan muhammad al muxtaara fi lxidami anna waaw xam nga bari na kuy firé wasalli yan ak gisaakum laa naa xayran boo ko firé du la ko wax gisaakum laa naa xayran ak wasalli yan ya ilahi wajziyan abadan muhammadan almuxtaara fi lxidami anna gàmmu kat yi duñu ko firi mukk de jumlay xaal la di ñaan ak majlool wasalli ya ilahi du dikk du firi ko mukk doxala waaw wala do wax Mm-hmm. waaw ah, ah, Alaaji nee na sëñ Cheikh bañ bokkoon julli barki dem ci Tiwaawan dafa ne wa salli yan ilaahi wajziyan abadan jar na sax bokk ci yéen dama ne ana jooju nag jumlay xaal la musi jasamata ta mushtaq sifa masdar taaddu tawkiid alaaji Maalik jaarang ma juróo ja wa salliyan yàlla nga dolli xéewal yaa ilaahi yow yàlla wajziyan yàlla nga fay yaa ilaahi yow yàlla koy dolli xéewal koy fay muhammad muhammad kuy muhammad al muxtaara ka ñu tànn fil xidami ci jëkk fekk yow yàlla ana mbir mu nga nuy wuutu ñu lay xaal la ne ana ci nun def nga musiba ana mbir mu nga nuy wuutu nun julit yépp wuutu nun yépp fayal nu muhammad yow yàlla alaaji maa ngi mën na koo fay xamu nu mu ko fay yow yàlla wuutu ñun ñëpp fayal na Mouhamad waaye Alaaji Malick Babacar Sy Abdoul Aziz Hadji Mansour Hadji Habib Cheikh Mouhamadou Moustapha yii ñi tax la ba dee fi wuutu leen nu ñun ñëpp fayal na leen makka yeeg bor yeeg kër yeeg nangam nangam yeeg ak ak ak ak ak yàlla yëpp seydil mursalin wa imaamihim Ceerno nee na bi mu santee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eɗen jetta allah mu ne mu ngi sant yàlla eɗen ñu ngi sant yàlla ñun ñëpp sabu diinu l'islam ina ɓeydi mu ne ndax diine lislaam mu ngi yokku diine lislaam ina ina mu ne ndax diine lislaam dundaat na dundalaat nañ ko diine lislaam ina semmi mu ne ndax diine lislaam am na force am na doole jama alhaji malik oɗo mu ne wurti hannde mu ne zawiya alhaji malik bi dundaat na tey maayaano ɓeydima wuurtude mu ne deewul woon mais gën na dundaat tey hajin seydil haji abdul aziz radiallahu taala anu kañum murtintinoo jamaa o mu ne suñu waajur bi baax bi seydi abdul aziz radiallahu taala anhu moom moo doon dundal zaawiya bi o ara ɗo o siftira jeyaɓe allah ɓe o ara ɗo o haaji noon de allah ɓe o ara ɗo o haaji noon de ɓe ko faye allah mu ne daf fi daa ñëw di fàttali nit ñi yàlla di leen xamal yàlla di leen wax yàlla di di dundale seen i xol moom moo fi doon ñëw di leen wax loolu yëpp di leen fàttali yàlla ɗum ɗoon ko hunde addiinde gila si alhaji babacar sy mawɗo o on ɗon waɗatno ɗum on allah nawi ɗum alhaji mansour waɗatno ɗum ɓen ɗon allah nawi ɗumen seydi abdoul asis heddi heddi haaji ne ina wurtina ɗum saha fof ina ara ɗo ina wurtina jama o mu ne depuis siñu siñu siñu maam seydi ababacar si moom moo doon dundal mbir mi place bi moom moo ko doon dundal bi mu fi jógee Serigne Abdou Aziz wuutu ko fi di dundal mbir mi di dundal ja jamaa bi di dundal jàkku papam ñanda ñalawma hannde o mu ne bés ni ki tey nag. holli dental ngal. wan na mbooloo mi. holli jamaa o. wan na jamaa bi. wonnooɓe doo ɓe ñi fi nekkoon ñi ko dem nañu rek soko noon ɓe njahaani mais demuñu lomtiiɓe ɓe lomtiiɗo ɓe ku leen remplacé ki haajino de ina yoni heen lomtogol ngol doy na si remplacé bi mu leen remplacé wuutu bu mu leen wuuti bi doy na si ina yoni haajino de e, e, l'islam mu ne doy na lislaam bi ina yoni haajino de e, dariqatu tijani o mu ne doy na yoonu su yoonu cheikhana ahmada tijani bi waɗi jama o weltiima hannde moo tax tey su jàkk ji mu munoon wax dina wone mbégteem haajino mu ne mbooloo mu jàkk ji tamit ñoom mun nañu wax ñoom xam nañ ne seen xol mbég bég nañu enen fof eɗen nde nde eɗen ñaagoo mo allah lomtini e haajino nde e yeeso l'islamu o allah lomtini ɓe ɗariga to tijani allah ndentiri ɓe haajino nde e allah ji malik watnoo ɗi ɗo allah o ɗacci ɗum ɗo juuti so tawi allah ɗacci ɗum ɗo ko juuti en gandi haajani l'islam o ko yeeso yarata en gandi diine o ko yeeso yarata en gandi haajani dental jama o ko yeeso yarata mu ne mu ngi ñaan yàlla si biir xolam si xolam la ko tibbee kii ki fi wii wuutu mbooloo mi tey ki fi wuuti ñu fi be ñu paase ñu ñu woon ñi mu ngi ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla gën a saxal gën ko dëgëral mu ne daf ko wóor ne su fi saxee su fi dëgëree lislaam bi sax na lislaam bi dëgër na yoonu Ahmad Cheikh Cheikhna Ahmad Tidiane gën na dëgër ɗum noon haɗa joni de eko haali ko tan e bange l'islam eko haali ko ko alhaji malik haalannoɗo eko ɗo ko ko haali ɗo ko seydi alhaji mansour haalannoɗo ko ɗum tan woni ko hestitini ko ɗum woni ko haaji mawnini ɗum ɗon haa dey jeyaaɓe allah ɓe fof beltima heen eɗen ñaago allah yo allah ɗaccumo ɗo ko juuti mu ne lim fi toog li yëpp li mu doon wax li yëpp daf ñu doon fàttali lu alaji malik doon wax lu seydi abi ababacre doon wax mu ne lu Abdoul Aziz doon wax lu Serigne Mansour Mansour si bu mag doon wax mu ne lool rek lañ doon fàttali mun na am fàtte woon nañ ko mais fàttali nañ ko tey ñun ñëpp ndax yàlla moo ne fa zakkir fa na inna zikra tanfaul muminin fàttali nañu loolu ñoo ñu doon wax ñi yëpp jógewul ci xel yi duggaat na ci xel yi duggaat na ci xol yi ɗum ɗon alaa ko ɓeydo ten heen hay dara ɗum ɗon haajani dey ko haali ko tan yoni e waajuji di yonne mu ne amul dara moom lu mu si yokk ndax li mu fi déglu li yépp wax na lu ñu waroon wax li yépp wax na ko mu ne amul dara lu mu si yokk su dul bég si kontaan si di ñaan yàlla na ko yàlla gën a dëgëral yàlla na ko yàlla na yàlla guddal fanam sona haajonde ɓeydude heen ko e dow ko haali ko haajonde o haali innama yamuru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhiri ɗum ɗon haajoni ko allah haalno ɗum kanko haali ɗum e nder haajoni nde haala makko kanko haali ɗum e ɗum ɗon haajini en mbawa yewtide ɗum ɗon mu ne amul lu muy wax lu dul aaya bi nga waxoon bi innama yu amaru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir mu ne loolu nga wax moom mooy dëgg jàkk ñi koy dundal mooy ñu gëm yàlla ñi fi nekk ñëpp dañu gëm yàlla mu ne loolu rek la siy teg moom lool bég na si wax ko ɗum wonnoo ɗo e jama o jama o ko guurɗo sa nani haajini yamul masajid allahi ko jama wiyama no wuuri ko dental ina woni heen dental ngal haajini de ina heewi ngoon jama wiyete ko mu ne soo déggee ñu ne jàkk ji dund na mooy jàkk ji nga xam ne am na mbooloo mu takku ñoo xamee ne du dog bés boo ñëwee di nga fa fekk ay nit mu ne jàkk ji wóor na ne jàkk ju dund la heure boo fi ñëwee di nga fa fekk ñu fi ñu koy dundal nit ñi ñooy dundal jàkk donc ɗum ɗon tan woni ko wonnooɗo en mbaawaa ɓeydude hay dara mu ne loolu lañ fi fekkoon loolu lañ fi fekk loolu lañ fiy bàyyi jàkk ji du du dee mukk ndax ki ko ko sàkk ku ko def ku defar jàkk ji moom mu ngi dund ba tey alsalaatu ma aljamaati afdalu min salaati lfajji bi sabi way sirina durjatan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli ak mbooloo ëpp na ku julli yow kenn ñaar fukk ak juróom-ñaari martaba durju ko wiyete durju mune ngabba huɓeere haajinonde ɗo koyngal ma yaɓɓata ɗo e ngabbirde ɗe henne ɗum wiyete durju oɗo no woni e nogasa e jeeɗiɗi ono woni e goho noon juulɗo e dental ina ɓuriɗo juulɗo kañum tan gooto fodde martabaji nogasa e jeeɗiɗi mune lutax mune durju moye escalier kii mu ngi nekk si première escalier bi kale mu ngi nekk si juróom ñaareelu escalier bi xam nga ne kale mooy jëkk yegg ku julli kenn nag yow yaa ngi mel ni yaa ngi nekk si première escalier bi kale mu ngi nekk si juróom ñaareelu escalier juróom ñaar juróom-ñaareelu escalier bi kooku moo lay jëkk egg martaba moo ëpp sa martaba lu toll noonu hadis ma aljamaati afdalu min salati lfaji bi xamsi wa isrini jus at juulde dental ina ɓuuri e e e juulɗo kañum tan goto gueɗe nogas e joyyi hunde wootere ɗum gueɗe nogas e joyyi ɗum gotel e nayyi noon juulɗo dental ɓuriɗi juulɗo kañum tan goto mu ne am na beneen hadis bu wax ne ñaar fukk ak mbir ña ñaar fukk ak juróomi mbir ñu jël ko séddali ko ay nit kii ñu jox ko benn kële ñu jox ko juróom ñaar fukk ak ñeenti mbir kooku ku julli si mbooloo loolu la loolu la ëppee kële e, ku julli kenn ki rek. xadisaaji dee luur daani mu ne xad ñaari xadis yi nag kii wax ñaar fukk ak juróom ñaar kii wax ñaar fukk ak juróom mu ne amul différence seen diggante bii ɗo haajino juul juulɗo e dental ine ɓuri juulɗo kañum goto nogas e jeeɗiɗi ko dental tawa dental ngal ko dental jama juulɗo e haaji nogasa joyi o ko dental tawi dental wona dental jama ɗum ɗo hadis aji ɗi lu mu ne ak juróom ak ñaar fukk juróom ñaari dafa kii julli si mbooloo fekk mbooloo mi du jàkk moom mooy am ñaar fukk juróom ki julli si mbooloo fekk mbooloo mi jàkk la kooku mooy am ñaar fukk ak juróom ñaari ɗum noon juulde e dental haaji de wiyama ko farilla annduɓe luurdi heen sabu tuugade ma aya qur'ana mo haalinane o hajin aqimu salata wa atu zakata warka'u ma arraki'ina totte asakal totte totte asakal juulde juulooɓe juulde juulooɓe o ko lamru ummiɗo joomiraawo ɗum noon wiyama yoga e anndu e jaari juuldude ko waaji waajibi sunna mu ne ñii firi hadis warka uma arraaki na kooku amru la comme yàlla dafa ne warka uma arraaki na amru bu jóge si yàlla yëpp faril la la ñenn ñi nee nañu julli ak mbooloo julli si mbooloo faril la la ku julliwul si mbooloo amuloo fa amuloo julli hañun wanne la sallallahu alayhi wa mu ne moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na la jaara la la salata li jaari illa fi l masjid juulde alana koddiiɗo jama sona e nder jama mu ne julli amul sa julli du wér wala sa julli du mot koo xamee ne dëkkandoo jàkka nga ko diiɗo jama sona e jama mu ne julli du mot walla amuloo julli dëkkandoo jàkk amul julli su julliwul si jàkk ɗum noon haadi o wi waare nelaaɗo sallllahu alih wa o wi nelaaɗo sallllahu alih wa aɗa anndi min gallam no woɗɗi jama nelaaɗo wiima ko goonga o wiyaɗanni min duuɓam keewi nelaala wi ko goonga o wiyaɗanni min haaji non de e, mi yiyata komi gumɗo nelaala wi ko goonga o wi mbeɗa mbeɗa wawi julde gallam wasano julde e den tan cabaka caggal wi la salal jalil masjid illa fil jasa illa fil masjid nelaala wino aɗa wawi aɗa wawi julde o ummi omo yaaha nelaala noddimo haw ari nelaala wimo beele so tawi noddinama noddinamaga jama ga aɗa aɗa nana o wi mbeɗa nana ɗum woni nelaala sallallahu alih w sallam wi man samiya nidaa al muaddini wa lam yaati bis salaati fala salaata lahu mo nani noddinaano noddinoo won ina noddina o o nootitaaki noddinoowo so juuli o dañaani juulde mu ne am na benn bi mu waxee hadis bi mu wax bi laa salaata li jaaril masjidi illa fil masjid am na benn saxaabi yi bu mag bi ko dégg mais mag la mu ne ñëw si yonent bi ne ko yonent bi xam nga ne man mag laa mu ne ko dëgg la mu ne ko xam nga ne duma ma gis mu ne ko dëgg la xam nga ne sama kër sori na jàkk ji mu ne ko dëgg la mu ne est-ce que mun naa julli sama kër mu ne ko waaw mun nga julli muy dem bay dem yonent bi ne ko laa salaata wona ɗum ara mu ko bo mu ñëw mu ne ko man sami a nida al bi salati aɗa nan so noddinama noddinama to jama to mu ne ko même ndax suñu noddee dinga nga dégg nodde bi mu ne ko aha kay dinaa ko dégg hadis o bi nekk képp ku dégg nodd kuy nodd soo ñëwul wuyiti nodd bi amuloo julli noon faccitoroɓe hadis ɓe mbi wonde ko nelaala wi wonde won ala julde mu ne lu yonent bi wax la salata lahum julli bi yàqu na rek amul julli goɗɗo mbi ala juulde nde bonani soko noon ende e, e manquine timmani mu ne ñeneen ñi nee nañu la salata lahu bu mu bi mooy julli ji am na wante motul dafa manqué noon ala hen ko jiɗɗen jiɗɗen ko ñun nag amul lenn luñ si bëgg a bëgguñu lu manqué bëgguñu lu amul dañu bëgg a julli ju mot kon nag nañuy julli si jàkk yi juulde woni chaairul islam man man ra'atum mulazimul fil masajidi fashhadu bihi bil limanil kamili kala moon mo jiiɗon ina ñiiɓe dental jama ceeɗonde ɗum limanagal timmugal ina woni muɗum ngal woni limanagal nelal sallah jomirawo wi innama yamul masajid masajid alaman amana billahi wal yawmil akhir mu ne sëriñ bi wax na ko sànq nee na képp ku ngeen gis mu sax si jàkk seedal leen ko kooku jullit bu wér la mu ne nag li bu mot mu ngi si moom kon nag euh, li mu wax li am na moyens yi bëri na moo tax ñu bëri di aji mais bu mu jafee tij taalibe tijaan yi rek ñoo doon aji moo tax nag loolu moom doy nañu ñun. Cheikh Umar Ndiaye Cheikh Umar Ndiaye koy daa ñett yi. mu ne ñoom Cheikh Umar tànk la ñu demee ba egg foofu.